ñoom ñi ngi judd en 21 mars dem ba le 20 avril nee nañ nag tey euh, bélier yi ñoom maanaam seen xel tey dina màcc torop ba tax na bépp projet boo xamante ne dañ ci dugg dina tax ñoom ñu am ci ay initiative wala dinañ ci am gis-gis boo xamante ne dina sore ba ndam nañ ciy jëlee ñu jël dem ci taureau yi taureau yi nag ñoom ñi ngi judd en 21 avril dem ba le 20 mai nee nañ nag ñi ngi leen di ñaax taureau yi tey ñu def très attention parce que du ñàkk daal ci kenn ci koo xamante ne wër na leen wala jege na leen torop du ñàkk daal mu defal leen maanaam wala mu nekk une mauvaise influence ci ñoom ba tax na daal ñi ngi sóoraale ñu ràññee bu baax tey ñi ñuy àndal képp koo xamante ne dañu war a ànd ak moom mu jox leen ay xalaat yoo xamante ne dina leen jural safaan ba nañ leen watandiku bu baax ñu dem ci gémeaux yi gémeaux yi nag ñoom ñi ngi juddu en 21 mai dem ba le 21 juin nee nañ nag jot na fi mu ne nii ngeen passé à l'acte yenn yoo xamante ne yàgg ngeen ko mbëbët wala seen diggante ak seen làmb wala seen ay nekkaale jot na nag ngeen wone seen bopp ndax dafa mel ni xalaat bu bare sonaloon na la ci euh, sa digganteeg ñoom waaye jot na nag nga wone sa bopp te euh, maanaam lu mu ci munti doon tamit nga doxale ak li tubaab tuddee humanisme ak éthique mu doon ci sa wàllu liggéeyukaay wala ki nga xamante ne tey moom nga nar a jëflanteel ñu dem ci concert yi concert yi nag ñoom ñu ngi juddu en 21 juin dem ba le 23 juillet nee nañ nag ñoom fi mu ne nii dinañ sentir maanaam guubu responsabilité ba tax na tey bu ñu leen joxee liggéey dinañ ko defee nu mu gënee ndax tey cawarte bu baax nañu euh, yëg te seen bopp maanaam mi ngi ci seen wëri seen mbagg daal xam nga nu ñu koy waxee ci tubaab que la tête et entre vos épaules donc daal tey lépp loo xamante ne da ngeen ko entreprendre dina nekk lu positif ñu dem ci lion yi lion yi nag ñoom ñu ngi juddu en 24 juillet dem ba le 23 août nee nañ nag tey dañu soxla ñoom lion yi waxtaan wala diisoo ak kenn waxtaan ak kenn koo xamante ne da leen jege loolu pour ñu wax leen li leen neex ak li leen naqari parce que yëg nañu fi mu ne nii euh, diisoo ak nit ndax li nekk ci seen biir xel wala li nekk ci seen biir xol maanaam ay secret diisal na leen torop ba tax na tey soxla nañ ci kenn koo xamante ne dinañ ko fa yebbi ñu dem ci euh, vierge yi vierge yi nag ñoom ñi ngi judd en 24 août dem ba le 23 septembre nee nañ nag vierge yi ñoom ñu ngi euh, maanaam euh, rechercher à retrouver li nga xamante ne moom moo di seen forme ñi ngi rechercher tamit maanaam gisaat nit yoo xamante ne buñ leen jegee dinañ am wóolute sécurité te dinañ leen mun a réconforter ndax fi mu ne nii soxla nañ lu baax maanaam lu jëm ci mbëggee lu jëm ci loo xamante ne bànneex la ba tax na daal ñoom tey ñi ngi wër ci kenn koo xamante ne dinañ am rassurance ci ñoom te dinañ am lépp loo xamante ne moom moo di confiance ak ku leen jàppale ndax seen maanaam seen côté émotionnel tey dafa jóg bu bare ñu dem ci balance yi balance yi nag ñoom ñu ngi juddu euh, 24 septembre dem ba le 23 octobre tey nag dafa mel ni maanaam seen euh, seen humeur dafa instable bu leen neexee ñu dikkali bu leen neexee tamit ñu ànd ak mbégte waaye bu mu ci munti doon bu naree am tamit day fekk mu nekk lu nar a déborder donc tey nañ jéem a canaliser bu baax li nga xamante ne nag moom moo di seen ay émotion parce que mun na indi ay difficulté wala tamit mun na indi keneen koo xamante ne ñi ngi nekk ak moom mu gis ci seen bopp donc ñu dem ci scorpion yi ñoom ñi ngi judd en 24 octobre dem ba le 21 novembre nee nañ nag ñoom que fi mu ne nii dafa mel ni ci seen wàllu liggéeyukaay dinañ gis maanaam ay possibilités yoo xamante ne dina bees ay bunt yuy ibbeeku ci seen kanam ba tax na lépp loo xamante ne dañ ko mbëbët wala ñu sumb ko dinañ ci am loo xamante ne dafa bénéfique te lu yokk lay doon donc euh, sagittaire novembre dem ba le 21 décembre nee nañ nag ñoom say sagittaires yi dañu soxla bu baax communiqué échangeante ak ay nit waaye ci loo xamante ne lu dëggu lay doon donc euh, ñi ngi leen di wax aussi jot na tamit ñu euh, wékk seen bopp nit maanaam di bañ a denc trop lépp loo xamante ne dafa nekk seen xol mais jot na ñuy waxtaan wala gis kenn koo xamante ne jege na yantoolu jege yantoo nañu trop ñu mun a waxtaan diisoo ndax ñu mun a féex ñoom ñi di euh, sagittaire yi ñu dem jëm ci capricorne yi capricorne yi nag ñoom ñi ngi juddu 22 décembre dem ba le 21 janvier nee nañ nag tey du ñàkk euh, ñoom daal maanaam seen kàddu dina am solo loolu ci diggante ñaari nit wala maanaam lenn loo xamante ne ñi ngi koy gëstu ñoom seen xalaat wala seen kàddu dina ci am solo maanaam tey daal dinañ juger loo xamante ne ñoom buñ ko tranché dinañ gis li nga xamante ne moom moo ci gën nee nañ aussi ñi ngi leen di ñaax bu fekkee dañu nar a tranché nañ jël position boo xamante ne bu dëggu lay doon ba tax na aussi kenn du ci am lu ci lu leen ci nara naqari ñu dem ci verseau yi ni ma koy waxee seen weer nañu nekk Pape Cheikh ñoom nag ñi ngi juddu en 20 janvier dem ba le 19 février nee nañ nag ñoom fi mu ne nii dañu soxla maanaam yëngute bouger bu dee Pape Cheikh moom ñu ngi koy ñaan mu dal ndax li muy yëngatu rek lu ci yokk maam ah, alfi yëfi kon day torojo morojo comme ni ñu koy waxee mais donc ñoom daal tey dinañ soxla bouger torop te bougement boobu dafa mel ni tey moom moo nar a fës tey daal bëccëgu actif lay doon maanaam tey daal tubaar fakal la daal bàyyi seex daal dina yëngatu mais ñu ngi lay ñaax aussi nga def tuuti sport parce que soxla nga ko te dina la permettre nga évacuer toutes les ondes négatives yoo xamante ne dafa nekk ci yow pour gën a canaliser aussi tes ondes positives mhm. ñu dem wala jeexale sax Pape Cheikh poisson yi ñoom nag ñi ngi judd en 20 février dem ba le 20 mars dafa mel ni même fi mu ne nii ñi ngi am ay projet de voyage yoo xamante ne mi ngi nekk seen tête parce que dañu sentir génn gisaat lu bees rencontré ñu bees ba tax na tey bu fekkee ne daal dañu bëgg tukki mun nañ ko essayer parce que du ñàkk dina nekk lu positif ci ñoom te dina leen ibit bu baax ibité Pape Cheikh. voilà donc c'était l'horoscope euh, ñu ngi la ci gërëm bu baax euh, Mado on te retrouve euh, tout à l'heure